gëstu bi tey jii di jàngat doomi daara yi seen comportement seen doxin ngir am ca way wu rafet ñu tànn tey ndam te wax ci mbiram ab jàngatam soxna May Kubra ko jàngenu mat be lay farala sol soxoy bu buñ jagal teg maxanaam ca boob ba jël kaala ga wekk Mourtada bu taxawee melaw murit saadix la yor te def farit jëmmam ja yaañ yi def jadit mu santu di murtada kanam nga leer mu neexiree jekkaw doxin du fërfëri di ndaw lu dër du ab dori kookaa di Seexu Murtada xaafiya gii la jànge woon 2008 ay at mam ñëwoon 2014 la woon Azhar di jàng Murtada ñanan ci at mu am fa ci saa si rekk la dal fa jug jël vol ba naaw wuti Maroc ngir yeggalee fa Murtada amoon na moom shahadatu husnu suluki day ku jug woyof ci wet ba mel ne xob rafet jikko di Murtada moo ñëkk a def ci conférence bii ñuy waxee ci biile baas journal arabe bu làkk sens te am njariñ di Murtada xolam ba daara jee ci ne defal na leen lu baax fu ne xàmmeewul mag gone ca seetla lam ga Murtada amul lu ëpp daara ji xamul fudul ci daara ji demul fudul ci daara ji mu assasaari Murtada mu nekk feek bu fi newul xalaat ya fii la koy jëmal man-man ba fii la koy jëmal ba gudd lu may ko murtada moo warloo woon tàngal kafe su bëggu jot ba muy ne fi te booba temps de daa jafe ndaxam ku baax la murtada moo njëkk a jënd ab machine bu copier ci ay junan jox daara ji mu xëy fi man la jafe woon ko murtada biirub li muy nekk Maroc lu am ci daara ji la takk nawloo ko lool te may ko sakk yërëm ko yéen Murtada royteef la tey ci ku fi ne góor ak jigéen mag ak gone ku bëgg tey ñu koy wane na roy ci jikko Murtada mbay laata seede yow sa jëf moo tax ma xam ne doo suruf mbaay laata wax ne nañ la def royteef te mel ne Murtada wa hakaza nu nurit min kulli taalibin yurit bi hilmihi ay yastafit fal yaxzu xaswa Murtada dundal te wéerloo daam suré dundal ba weesu ab dori yaru nga yiw nga yaa amuñ ku mel ne Mourtada mu